bu ñu leen ñëwaatee amoon mbégte kontaantuma saa su ne ni ñu leen koy faral di defee di leen toppal li nga xam ne moo di actualité mais aussi di seeti ñi nga xam ne à chaque fois dañuy doxantu ñoom di xool ci li ñu nekk muy artistes yi nga xam ne kenn dootu leen présenté ko séq tey nag dañoo doxantu seet si ki nga xam ne nee la artiste la koo xam ne nii kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal waaye la présenté international mu nekk koo xam ne nii ñëpp ràññee nañ ko ci réew mi ñëpp bëgg nañ ko ci réew mi mu nekk koo xam ne nii eh, dama la ñëw rek muy Ndiogou Mbaye eh, su ma waxee Ndiogou Mbaye xel yëpp day dem ci ki nga xam ne moo waxoon bagage yi na dugg na bagage yi dugg mu riiraloon dëkk bi yëngoon dëkk bi doon ko yëngal ba léegi nag tolloon ci di ko yëngal waaye ñu gëj koo gis namoon ko lool moo tax tey euh, suñuy plateforme ñëw doxoon si seet ko euh, DKR ak euh, li xew ci TV ak siwal ko TV ñëw seet yi ko fas yéene laa waxtaan ak moom ndax njóogu nag dañ koo namm hmm. askan wi namm nañ ko gëj nañ koo gis waaye tamit dinañu wax fan la nekkoon ak ci lu mu nekkoon ba gëj nañ koo gis njóogu maa ngi leen nuyu. Hmm. waaw mais maa ngi lay fay salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna bi Euh, maa ngi nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di kontaan ci ñëpp mhm. di wax ni namoon ngeen ma waaye nag man Ndiogou Mbaye maa leen raw ngi nuyu Sénégal mhm. nuyu àdduna nuyu suñu suñu njiitum réew mhm. président Diomaye fay di ñaan yéen bi oyof lool ci kawam nuyu suñu premier ministre Sonko di ñaanal tamit suñu président bi fi jógee Macky suñu borom guddal fanam di ñaanal suñu sëriñu te darayaax yi seen mhm. diine yi kilifa diine yi mhm. kilifa aada yi maa ngi nuyu ñëpp mhm. bàyyiwuma kenn daal nuyu naa réew mi jërëjëf ayca ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax te di la sant tamit di la gërëm ci nangu gi nga xam ne nangul nga ko ñu ñëw seet si la waxtaan ak yaw ci li nga xam ne moo jëm ci sa wàllum carrière ak ci wàllum musique Ndiogou euh, Ndiogou gannaaw loolu Ndiogou gaa ñi namm nañ la Ndiogou fan nga nekkoon waaw mais nekkoon ci tinel rek am nga nekkoon ci roq yi nekkoon ci studio yi nekkoon tamit ci job bi parce que ni da ngay toll foo ni il faut que nga làqatu mën a liggéey loo xamante ni pour ñu soppe yi pour am di jàmm yi mhm. mais bu weesee loolu yàggul yegg si waat na ñëwaat nañ te mhm. Sénégal xam nañ ni ñëwaat nañ mhm. àdduna xam nañ ni ñëwaat nañ te bu ñëwaatee dëkk bi day yëngu dëgg la waaw faaw mu yëngu daal faaw mu yëngu waaw mais ñu gis ne 2019 euh, nga génn li nga xam ne woon na bagage yëngu mu nekkoon loo xam ne def na it euh, Sénégal ñëpp doon ko challenge mhm. à part loolu ñu toogaat ay euh, deux mille vingt deux mille vingt et un gisatuñ Ndiogou mhm. fan nga nekkoon soit da nga voyagé woon ñii naan Ndiogou dafa voyagé wala ah, Ndiogou mi ngi woon biir Sénégal ndax voyagé woon naa nag euh, dafa benn quelque temps mais yàlla dogal na ni ñëwaat naa mhm. parce que man Sénégal rek laa man Sénégal laay tiitaroo Sénégal laay bégee mooy sama lépp te fii lañ ma bëggee fii lañ ma xamee kon fépp fu ma dañuy dem rek pour wuti waaye bu ñu wutee it dañuy ñëwaat. kon te te ñëwaat nañ daal. ñëwaat frère. Mhm. ñëwaat nañ. ñëwaat te gars yi dañ xam ne ñëwaat nañ. Mhm. ñëwaat bi ñëwal ma ci tuuti rek naka nga ñëwaatee. Ah. ndax euh, maanaam tey danga ñëwaat indiwaat yeneen projet yu bees. Ah. wala yeneen salante wala yeneen yoo xam ne nii tey indi lu bees tax lu doy waar. Hmm. yéeme ak njóogu mbay parce que ñun yàlla dogal na ni euh, li ñuy def dañ ko xam dañ ko maîtriser. Mhm. te it buñ koy def nit dañu xam ni ñii li muy def dañ ko dañ ko maîtriser ndax maanaam xale yi ci ñun lay jàngee xale yi waaw gone yi di way ni telli telli loolu loolu réew mi dañ koy bañ de jóg di tëggi ay faaye faki ay baara bu ne man jóg loolu xale yi dañ koy bañ ñu ngi naan xale yi maanaam comme si que da nga leen jàppee ay xale waaw gone ay lañ ci ñun hmm. parce que bëtub tànn jéggi na meddu melentaan mais fii nag saabu du fóot boppam te ku ci ne xam nga li nga mën mhm. mais njóogu nag moom du wax kenn dara moom day mhm. bàyyi gaa ñi dëkkee wax rek mhm. ak kalan moom muy liggéey parce que instant bi soobis bi toll na foo xamante ni kalan yi rek ñoo koy yëngal mais talent yi ñu ngi seen ndoxu di di waaw liggéey lu doy waar mais à tout moment dëggay njëkkate mooy mujj mooy mujj njóogoo gi ñëw yaa ngi ñëw ah, sa biir wax nga ne ma xale yi ça veut dire xale yi comme ni nga ko waxee ndax ku la xam-xam ne xale yi yaa leen njëkk waay te yàlla leen dàq way comme ni ñu koy waxee ndax nag way ca baat ba lañ koy waxee ak ca fa nga ko jëlee su donnu ga waaye gis nañ ni xale yi jamono ji daanaka ñoo ëpp fële ñu ñu ndax ñoom ñoo ëpp di ñuy mm-hmm. ñoom la ñuy gis ci euh, internet yi ñoom la ñuy gis partout mm-hmm. lan moo dox sa diggante xale yi ba xale yi nekk sa kanam non xale yi kenn nekkul sama kanam parce que li tax nekkul sama kanam mooy que ñun euh, lépp muy émission muy télé muy rajo mm-hmm. ñëpp ñuy woo njóogu dama bëgg def émission la mais dafa am ci lu ma nekk am ci lu ma nekkoon ay loxo yoo xamante ni ñoom jógu ah. defal tegal bul def comprendre nga mhm. ñoom benn label de production boo xam dañ doon jóg ak ay moom mhm. ñuy ay nasaraan mhm. ñu jóg ak ñoom beneen musique muy international soxlawuñu woon lii comprendre nga liñ soxla woon njëkkati woon seen i xaalis def ko ci ñun dañ doon jóg ak ñoom mais loolu yàlla dogal na ni loolu euh, liggéey liggéey nañ ko ci jàmm xon instant bi lépp lu Ndiogou Mbaye doon def deux mille dix neuf 2021. comprendre nga 2021. lu ko raw lay defar. parce que Ndiogou dafa demoon defi beneen musique. Ah, parce que musique du ya. kase ah. d'accord yenn saa tamit nga def yeneen musique yoo xamante ni dina la mën a may leneen. comprendre nga. léegi nag Ndiogou ñëwaat na ci game bi. da koy hmm. yëngal. li ñu moom dañ koy jëli amul kenn ku mën tax duñ ko jëli parce que li ñu la. Hmm. musique dañ ci am wàll mais njoogu ni nga ko waxe yomb na torop li ñu mom dañ koy jëli cela veut dire dafa mel lo xamni da ngay dem rek fekk ko fa jëlat ko indi wat ko fan nga ko tek c'est facile yomb na parce que ay way la rek ak nit ñi bëgg la te nit ñi bëgg nañ ma mhm. ñi may safo ñi may titero comprendre nga te bu ma tëggee xale yi ñew xalé yi man lañ bëgg hmm xanaa bërki démb ñewo ñëwoo fële ñëwoo Kawana xanaa ñëwoo Five bi may tëgg daal Salim mhm. xanaa ñëwoo bi may tëgg Escale mhm. vendredi passé hmm. xale yi man lañ bëgg ma la ñuy topp bu may tëgg ñoom ñëppay sañse ji hmm. dangay gis ñi dem marché zinc dem pause xale yi ñi dem marché joor comment nga forom ñu ne tey njoogu mbay mooy tëgg hmm. faaw ñu dem loolu yàlla la du man c'est pas man nañ ma ko nangul hmm. loolu du dara comment nga kon nangu jël na cëru bañ njoogu da koy yëngal Mm-hmm. barki Serigne Sall. Mm-hmm. mais kon kon nan ngay wax mbokk sénégalais yi ak mbokk internautes yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ñu ci bëri dañoon def xel naan jógu ginnaaw bu mu génnee li nga xam ne bagage yi dugg. Mm-hmm. ba mu jàllee dafa mel lu fay. nga baal ma ci kàddu gi. waaw lan nga leen di wax ci ñoom ñi nga xam ne tey daanaka da nga nekkoon ci projet projet yooyu jeex. nga bëgg ñëwaat lan nga. waaw non xam nga Sénégal li jàppee que mooy nit bu nekkee ci beneen job rek nekkatul ci. Euh, ci internet bi nekkatul tamit ci kii bi. mooy jàpp na euh, fayda dañuy jàpp ni kii dafa dafa dafa SN bàyyi. Mhm. te loolu du SN bàyyi parce que nit ku nekk di nga am nga toll foo xamante ne il faut nga toog benn quelque temps su Youssou Ndour day saa toog benn quelque temps. la Pape Diouf comment mhm. parce que instant bi clan yi rek ñoo fi nekk di doxal. parce que clan yi wut nañ seen i seen i waxkat. ay défenseurs ci ci ay défenseurs ci réseau yi. Mhm. wut seen i milieu terrain. ci réseau yi. di leen fay ñuy wax. ah ñu leen di. waaw loolu moo ah. fi am. woo benn nit xool ko muy saaga den fay ko. dëgg la ay millions jox ko ne ko saagaal Ndiogou Mbaye yàqal ma Ndiogou Mbaye. Mm-hmm. loolu moom léegi Sénégal. Mm-hmm. Sénégal loolu moo fi am. Mm-hmm. yàqante waxante lu ñaaw. soxorante. ki ñaanante liggéeyante. wala bërki dem am na benn waaye ju ma seetaan lu ma metti muy gaayaan boobu kooku tent bopp bi te muy wax ci njàpp ni njàpp moo ko liggéey. Hmm. kooku bon la hmm. fecckat boobu def na lu ñaaw sama yoon nekku ci nag commande hmm. sama yoon nekku ci maa ngi koy tooñ sax mais def mais def na ma def na lu ma metti parce que parce que xam na xam na dama que ku gëm liggéey rek wala kuy liggéeyaat mu naan diw daf maa liggéey ba ba mu lay liggéey da ko fekke sëriñ ba na de kii da liggéey est-ce que kooku am na lu ko wóor. Mhm. kooku bu xamoon est-ce que sëriñ boobu xam na moom kañ lay génn àdduna. Mhm. si yaa ngi nañ bàyyi loolu diw liggéey na rek gëm nga ko diw def na rek gëm nga ko nañuy doyloo yàlla tuuti fii yàlla rek moo fi nekk loolu yàlla nen la. ñi fi téye àdduna ñi fi téye réew mhm. ñi nekk ay président. du sëriñ moo leen ko def. yàlla la. suñu borom. buñ fàtte suñu borom. bu nu jël sëriñ teg ko ci yàlla yàlla moo fi nekk mais nag yàlla yàlla bay sa tool nit mën ngaa dem ñaan lu ji bañ ku la def lu ñaaw hmm. mais bul def kenn lu ñaaw mais jarul toog naan diw moo ma liggéey dem naa ci sëriñ nee na dem naa ci sëriñ ñëw na yow fexeel yow kooku danga naan moo liggéey kooku noonu nga roppi ko mais kooku mu ngi liggéey lu nice mi ngi teg lu nice bu kenn saltel kenn hmm. loolu laa gëm Mhm. xale bu nekkee ci yoon di ko teg ci yoon di rafetal di jouer lu nice nañ ko ñaanal te bañ di ko yàqal quoi. Mhm. mu nekk lu am solo comme ni ko waxee ñu ñëw euh, directement bi mhm. nga xam ne jamono ji artistes ni ko waxee boo amul défenseur daanaka kenn dootu la moo tax euh, boobu ko leeral ñu da nga nekkoon ci projet mais jamono ji est-ce que boo ñëwee da nga def seen bopp nekk say défenseur te man nit ñi ñoo bëggal seen bopp nekk sumay défenseur te duma ko fekkee mais man du ma woo kenn yëkkati xaalis di la jox naan la saagaal kii saagaal Salim wala saagaal Waly Seck mhm. wala saagaal Youssou Ndour mhm. wala saagaal diw ak diw wala saagaal Momo Dieng mhm. non non non non parce que man ku ma saaga man ku ma saaga man Ndiogou Mbaye dama lay baal mais buñ tasee man a yow dootoo ma saaga man nga ma saaga nii ci internet mën nga ma saaga feneen mais mhm. buñ tasee man a yow amoo fitu taxaw di ma saaga mhm. parce que du mën a saaga man mhm. man du ma xool nit di ko saaga ndax xaw ma luy saaga comment nag kon du mënuma fay nit naan ko saagaal xam loo mën mooy di sol lu rafet xeeñ lu neex bu woy jotee ma woy lu neex ndax maa maa ko daax xale yi doo moroome xale yi daal su ma la déggee maanaam tey ñi ñu fiy jamono ji ay Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal.